taxawoon na ki nga xamante ne yaakaar naa ne bu ñu nee Baye Demba ne riche dañ ko laaj nan lay def si li nga xamante ne rek mooy bésu Baye Demba bi dañ koy laaj rek nan la gisee bés bi ak ni nga xamee ne sénégalais yi wuy see nañ ko Baye Demba. waaw mais bés bi dafa ala daw me ndaxte Ndakaaru dafa namoon de Medina Fass Colobane Gueule Tapée namoon de moo tax ñu def lii rek waaw. waaw daanaka benn après déconfinement mënul yomb. mais mënul yomb nan bëggee rek. waaw ba pare ñuy waaj li nga xam ne rek mooy weeru koor bi tamit. ah nañu koor. waaw. na ñëpp woor. a balaa ñoo woor. waaw ñu kii de ah. waaw ma saytaal. bu ñu fi jógee daal nan woor. ñëpp. man na riche damay woor. kon riche nee na. riche na ñëpp woor. Ah, waa gis nga riche nag ni nga xamee rek noonu la Baye Demba noonu la ko sénégalais yi bi nga dugg see bi lan nga yëg. mais bëgg rek ndax nii la demee nan kontaan jëlal lii jëlal lii jëlal yéen jeex na jëlee maa ngi ci loolu. Borom bokkul ko cër la rek cër la cër la donc ñu joxe cër donc ñu la jox cër yàlla dama bëgg kuy cëral doomu adama cëral doomu aadama wallahi suñu borom da lay cëral moo tax ñoom ñëpp ñoom réussir ñoom lancé ñoom ñoom daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm donc kontaan si yéen waaw yàlla jàmm jërëjëf damay ñëwaat tey bi nga ñëwee sa doom ñëw tiim la way way boo xam ne yaa ko tëgg wallaay way loo yëg amee hélas hélas naan la hélas sama doom la way woowu euh, suñ koy sama xol dafa tooy sama jibo bi mais hélas kay daa mën naa war naa mën a way bay sa yu bari sax ci musique bi la ko xam waaye bu yoree micro nga dégg muy tagg Seydina Mohamed nga ne kii lu tax mu dem defi musique donc moom il est pétri de talent loolu ci deretam la tu vois moom itamit ñu koy ñaanal parce que dëgg yàlla may déglu rek waaw tey nga may déglu rek ku def fos na après ma woon ay mën na jóge. ci yéen jërëjëf. Laay Mbay. man maa fees aru njëkk. walaay fii la ñu ko. aru njëkk maa ko fees. man lay jaama. moom mooy sama sang. moom ma war a. sama bakkaay. mais nag balaa nga xale bu baax. I'm kontante mbégte ndax Medina yëpp génn may sant yàlla di baalu Sénégal yëpp ak di Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. Ah, nga ñëw ci ba si Baye Demba gis na ne ko nit ñi wuy see Sénégalais yëpp wuy si ko lan la la def. waaw baax rek moo am solo nit ñi kenn moomu leen dangay baax rek moom ñëpp waaw. Ah, mu mel ni nag sénégalais yi dañoo namoon li nga xam ne rek mooy yëngu ndax dañoo jógee ci confinement. waaw gis nga bis bi ni mu mel. waaw lii lii wane na ko daal man sant yàlla rek laay jërëjëf sant yàlla jërëjëf. waaw ah, ñu lay xaar ci géew gi nag. waaw ah, léegi rek incha allah nga defal ñu li nga tàmmal. jërëjëf léegi rek incha allah incha allah. Ngoné Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw Ngoné nga ñëw nag sama xarit bu yaa ñëwee gis nga li nga sañse. waaw gis nga de loolu tamit na ñàkk la. waaw ah, gis nga. daal di ñëw wuyu si ki nga xam ne rek mooy Baye Demba ci bésam bi bi nga dugg see ci bés bi gis na mu mel ni ko Sénégal wuyu see lan nga yëg. moom moo ko leblee nit ku baax la nit ku yaru la artiste bi joxe cër la kon mu woo rek dañ koy wuyu ji damaa ñëw gën a neex waaw. est-ce que tey mën nañu xaar maman Ngoné may ñu lëmbal ne mën naa am. loolu moom dinañu neex lool. lu ne mën naa am waaw. waaw xam nga euh, bi waaye dem ba daal ñuy bi ah, mu ni ngi dañoo nangoon ñoom nangoon nga xam ne rek mooy yëngu-yëngu yi ko nii. la parce que nit ñi dañoo mu bi dañ ko koy euh, na loo maa ngi toog rek yàlla baax na. na ñamal ñu bi xaar ci géew gi nag. jéem a amul problème. waaw papa maa ngi toog ak sama xarit bi Aïssatou gis nga ko li mu sañse euh, Aïssatou tey euh, lan mooy sa relation ki nga xam ne mooy Baye Demba ba tax nga yàq say nelaw daal di ñëw teewal ko ci bésam bi def ba mu baax tamit. waaw maa ngi nuyu ñëpp may seetaan euh, Baye Demba sama jëkkër la moog Aziz ñoo bokk ndey baay mu maree ne ma bés bi ma ñëw def ne rek wuy si ko waaw ni nga ko wuy see ni nga ko wuy see rafet na neex na euh, tey lan nga yëg bi nga dugg see ci bésu Baye Demba bi sénégalais yëpp wuy si ko fi fees del xew bi débordé ñëpp ñëw lan nga yëg lan nga sentir waaw mbégte rek la ñu am parce que famille bi ñëpp retrouvé wu nañu waat nit xarit yi mbokk yi fi daal te dañu namoon ambiance ak euh, Covid bi. gisaguñ la ci géew gi de. ah gisaguñ ci géew gi. bàyyi rek ma toog ne. da <laughs> may monsieur Faye Aziz. waaw sëñ Sëñ Birame Gueye Kébé yaay Awa Diagne. nu ma mel rek yow la merci kontaan robe bi Vera design maquillage bi Khady Ndoye. ci lay neex. merci beaucoup merci. ñu lay gi nag. d'accord waaw. Ah, mooy Baye Demba. ah ñëw ci bësam bi daal di bi mu nekkul rek ndax mën nañ ko ak bi ñu rek fekk ko fii mu daal di def ni mu ni mu daan def saa su nekk kon nag dañ koy jaajëfal ay cappaandu bàyyi. waa waa papa comme ni ñu koy waxee rek ah derrière chaque grand homme baax na papa comme ni ñu koy waxee derrière chaque grand homme il y une grande dame kon grande dame ki nga xamante rek mooy dem ba moo toog nii ah dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokk yi. maa ngi di leen ziar di leen sant di leen gërëm ci bés bi ngeen teew nii. Ah, nga ñëw nag ci sa bésu euh, borom kër gis ni mu mel ni ko sénégalais yi wuy nga yëg bi nga dugg see. comme li may di ko ñaanal yàlla rek mu gën a góorgóorlu parce que loo gis rek yar moo la koy may moom rek laa koy ñaanal fay. Ah, mu mel ni nag ah, sénégalais yi tey dañoo namoon li nga xam ne rek mooy lu mel nii Baye ba indil leen ko ñu déconfiné rek Baye Demba daane leen koy indil. waaw gis nga moom da ko namoon nag waaw xam naa moo tax rek mu def nii rek fël la fii. lan nga ñuy wax si Baye Demba. Baye Demba baax yaru bëgg njabootam. jëkkër ju baax la dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér ndax macha allah spécial waroon naa am ci li may wax ci moom. mu mel ne xol bi dafa fees mënoo wax ci moom lu bari. billaay xol bi dafa fees ndax dafa baax. Euh, tey tey euh, am jëkkëru artiste mu mel ni Baye Demba ah euh, muy dem fu nekk est-ce yomb na noo koy gérer. waaw mais gérer rek gérer rek. métti na mettiwul mais da ngay gérer rek ndax euh, boo xamee sa bopp sa jëkkër am la teg defe naa li liy métti bariwul quoi. waaw loolu loolu kàttu kàttu grande la grande dame noonu lay def. waaw mais noonu la waaye sama xarit la. merci beaucoup waaye waaye euh, euh, gisaguñ nga yëngatu ci géew gi. léegi ma duggu norme léegi rek xaar ma. ayca ñu ngi lay xaar merci. waaw papa maa ngi toog na ki nga xam ne rek mooy chéri Alaaji Faye ñu koy wax Sini Mbaye euh, siini xam naa duñ la wax rek tey lan mooy sa tànk ci bés bi dañ lay laaj rek ba nga xamee ne dugg si nga ci bés bi rek tey lan nga yëg euh, ni sénégalais yi wuysee ki nga xamante ne rek mooy Baye Demba waa dama ci yëg fierté ndax Baye day sama xarit depuis Pambay Daaru Mbay bokk ndey ak Baye may sëy magam di Alaaji Faye jur ci sama turandoo yaay at turandoo mbay jël kon baay dama koy ñaanal gudd fan at wér ndax lii du bulet doomu bàjjan doomu ndijaay la kon bu ko defee war na dama fee dëkk ba pare sëy si ñaari cër laa fi am kon dama koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu koy féete ay déwéni déwén di ñaanal sama jëkkër nag ndax li yëpp moom moo ma jox lu ma ñëwee moo ma waajal li ma ñëwoon ma ànd ak samay mbokk ñu ñëpp samay mbokk lañu kii sama taawu yaay la di nuyu sama yaay di ko sant di ko gërëm ndax moo fi sëy si ba am ma fi tey di ñaanal sama papa fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xaree àjjana ci dara jëy Mouhamed ban gis nañ ne nag yaa ngi wax ak xol yaa ngi wax ak émotion lan nga yëg bi nga dugg see ci bésu Baye Demba waaw dama yëg fierté yëg mbégte at bànneex ndax lii dafa neex àdduna du dara kafalante la at bégalante li may def sax mënu ma ko mënu mais faw ma def ko waaw ndax da moom kenn kese la ci ñun man ku sampaa jën jur sama xarit nga kon damay ñaan yàlla rek yàlla na yàlla def jàmm Baye Demba di caatu señ-señ tey saa yu ñu ne Mbaye Dieye rek Baye Demba lañ ci teg te moom muy caat ci kër gi waa parce que loolu yaroom moo ko may fonk na ay magam respecté na leen Mbaye Dieye moom mënuma koo ñaanal ndax dama jur sama taaw ñu tuddee ko ko te daw ci dara kon dañuy ñaan yàlla rek waaw loolu rek la ñuy def ñaan kon ñu bàyyi rek euh, programme bi daal doxal ba ca kanam waaw gisaguñ la ci géew gi dinaa ñëw ñu ngi ci géew gi jeena <laughs> ayca merci

Voilà. la ku la lebal bu baax lebal nga ko askan jëwul yëpp ndax yaay suñu papa yaay suñu référence yow su ma demee sax ba def rasta sax xam naa li ma soree tax ndax yaa ngi njëkk a wax Aziz un griot doit être noble parce que y' a un problème qui dit si tu aimes quelque chose sans le déclarer cela veut dire que tu perds quelque chose de la valeur yàlla na suñu borom bi jàmmal lii nag ak xeet la damay bàyyi gars yi ñu yeggali te nag ànd ak sa doom yi doomu Lamine Faye yi waa parce que ñëpp a ngi ci ginnaaw waa Dosé dama ne yàlla na seen yàlla yàgg bàyyi joxal ma ko suñu papa ji ma nag lu rëy la ama dem ni ku la bëgg la te am na ay kàddu yu ma dégg ci papa bi ba ñu ñëw ndeysaan léegi yow xam nga ni sax moom bu toogee tene wala jigéen bu ko tene maa lay dëkk woon dama ànd nga Ndiaye Faye maa ngi seetaan ma ne ko nit ñi lii gën a seetaan mu yeggale ba mel ni xëy na si télé bi ndax moom dalaa yàgg dugg kii yow yaa tax muy taasu yow yaa tax ñuy taaj man mii su ma demee micro yow la barke yéen bi yàlla sa jàmm yàgg yàlla sa jàmm yàgg yàlla sa jàmm yàgg yàlla ba gudd fan barke yéen bi loolu yàlla yaa tax ñu xam ma de barke alxuraan kenn du yow du loolu jërëjëf yéen waa Seck Seck ci barke euh, Seydi Aboubacar Sy dama bëgg nga tàccu ma Babacar dama bëgg ñëpp tàccu bu ko tàcc yooyu yàlla bu la yàlla tàcc tàcc yi na gën a saawar baaw jërëjëf fils kontaan naa euh, am naa mbégte lool yow de xanaa danga xam ne man yëg si may bigal la bokk sama bas sax dama ne man ba koy teg takk tekkiwaat ko kon lii la lii la sant et di gis ni foo toogee ci télé bi yaa ngi may sagal seetaan naa la ba tàyyi neex na sama waa kër yële ak ñoom ajatu mam yaay ñoom Binta ñoom Caane ñoom Ndeye Niassek ñoom Cody euh, Gueye ñoom Mame Mari ku ne xam ne yaa ngi may bëggal mais nag bay dem ba ku yuuxu ci kaw yàlla boo gisee Seydina Mohamed si bay masa masa dégg fils toog naa wax ko ñoom Alaaji Fay dañuy jël bés boo xam ne duñ ko defee fenn sama ëtt bële te Sacré-Cœur la ñuy toog lan basang yi ak tapi yi daa di Congo nga xam ne wil wil sa yaay yële loolu da nga koy def de wala kaanaan maarul ko bëgga naa nit maarul xaba kaanaan baaje jigéen musu ko gis kaanaan maarul ko bëgga naa nit maarul wala xam nga kaanaan baaje hay taalibe Serigne Babacar Sy bakare koroma ayo makuma cam kokuma pendo pante pata wolon ariyamma ko kutto e dangal maru jogo danani tumaru Babacar ni sana ade tegen ko sukoji o marama dangal maru jogo danani tumaru wolon kamdakama ci xëy teg ci te am asalu ne xoolal man Babacar bi xale kese laa liggéeyam a ñor yàgguma ci mbokk waaye yàlla teral na ma ci. damay ji ba nañu ba damay ji leen damay jëm kati baba la def ba may damay jëm kati baba la def ba may wala dama koy nag dama koy nag dama koy nag Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Basa basa. Wala dama leen di def suba. Cheikh Allah.